asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di ziar bu baax a baax eh, di wax ngeen wii di abonné te di activer cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal eh, di ngeen bokk ci ñu ko njëkk a gis wéleen di like di commenter nga partager ñu ñëw wax ci suñu international sénégalais Lamine Camara eh, ki nga xamante ne moom lañ tabbu meilleur pépite bu

match bi nag un bi partout la ci diggante bi ñuy defee vidéo bi nii mais euh, dañuy jaajëfalaat rek di wax que ne Lamine Camara mu gën a yokk fulla fayda ak ju koy gën a même si mi ngi koy wane mais nag euh, dañuy wax rek mu gën a yokk affaire bi donc dina wax wéy leen di like di commenter jaa ngeen